Bonsoir. Je suis Yassine Fall, de la coalition Benno Bokk Yakaar. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, très chères autorités. Bonsoir à toute la jeunesse de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un grand événement qui est de célébrer la victoire, mais aussi de rendre hommage notre cher président, Monsieur Macky Sall. Cependant, la jeunesse de la coalition Benno Bokk Yakaar, après un, lab, un dur labeur avec nos chers leaders qui n'ont mélangé aucun effort durant les campagnes électorales, s'est réunie pour célébrer, pour échanger aussi avec vous certains points. Sur ce, Je ne vais pas être longue. Nous, cette jeunesse, nous avons besoin de vous pour pouvoir sentir que notre effort fourni pour la réélection du président doit porter ses fruits. De ce fait, nous voulons un travail. Oui, un travail. Les financements, oui, ou même des formations pour participer dignement au développement de notre sainte commune, mais aussi d'entretenir les besoins familiaux. Donc, s'il vous plaît, faites de ces doléances un credo afin de pouvoir intégrer la jeunesse dans toutes les activités. Je vous remercie. waaw dañ euh, en tant que ndaw Benno Bokk Yaakaar de célébrer suñu victoire président waaw di ko rendre hommage aussi ci li nga xamante ni si gagné na ko ci biir réew mi rawatina ci waawan ndam li fi am ñu jeunesse Benno Bokk Yaakaar takku nañ doon benn nekk suñ ginnaaw président Macky ba yàlla defal ko biir ndam ñu ne nañ jóg defal ko benn sargal waa ci kaw loolu xanaa ñuy gërëm suñu autorité yi nga xam ne àndoon na ak ñoom ci combat bi nga xam ne bàyyiwuñu ginnaaw waaye jeunesse bi nga xamante ne si ñu accompagner woon leader yi te jeunesse bu jàmbaar bu am doole bu bu déterminé si waaw balaa ñoo xamante ni si euh, combat bi jàpp nañ ci ba le président Macky am ndam. léegi ñu ngi xaar ñu ngi xaar aussi lu bari tamit ñu bàyyi ko xel jeunesse bi mooy jeunesse bi war nañ leen a bàyyi xel bu baree bare bari ci wàllu liggéey ci financement ci formation xam ni fii ci euh, waawoon intellectuel yaa ngi fi étudiant fi ouvrier yaa ngi fi ñi nga xamante ay jàmbaar lañ ay ay euh, jàmbaar lañ ci liggéey ñu ngi fi ñu ngi xaar loolu aussi pour le président Macky Sall gën ñu see jàppale ndax mu ngi ci jàppale bi waaw waaw li ngi xalaat bari nañ li ñu xalaat bari nañ ci waawoon koo fi jël leader la koo fi jël responsable la nañ xool ci suñu responsable yi ñu porté leen ñu def leen ay leader ay ñu def leen ay euh, ministre avec avec portefeuille ñu def leen ay ministre avec portefeuille ku ci mel ni ministre Abdoulaye salli ñu ngi fi ak tant d'autres bi nga xamante ni si sax jël ñu si waaye ñu ngi ci biir